bokk na ca ci xibaar kii di Ousmane Sonko premier ministre bu Sénégal jamono jile nag ñi xam ne ne mu ngay waajal li nga xam ne mooy déclaration de politique générale foofu ci assemblée nationale Doro Gueye mu nga ci prison Cheikh Bara Ndiaye ñu daal di ko convoqué ca dikk ngir mbir mi ndox ci diggante ak soxna si di Thérèse Faye dinañ ci ñëw ci biir xibaar yi. Eh, ñu leen di fàttali nag ne kon mbokk yi kii di Ousmane Sonko gannaaw ba nu ko tabbee rek premier ministre eh, bu eh, Sénégal moom nag ci lu yàggul dara ministre naa xaarandi mu daal di dem ci assemblée nationale janook de député nekk foofee ngeen nag def li nga xam ne moo di déclaration de politique générale ki xam le nu mel di kenn ci jëwrin yi bokk ci gouvernement bi di ministre de l'hydraulique ak assainissement docteur Cheikh Tidiane Dièye moom ministre bi nag nekkoon en visite de chantier ci banlieue bu ndakaaru e, ngir waajal nag li nga xam ne rek moo di hivernage bi moom nag moo daal di e, joxe xibaar bu nu mel jëm ci déclaration politique générale bu premier ministre bi mu xam ne rek moom jàpp na ne bu ko defee rek Sénégal yi dinañu gis ak changement boo xam ne régime bu yees bi indi na ko fi loolee la xam ne rek ne ci lu yàggu dara bu kii Ousmane ko defee déclaration boobee e, ca assemblée national dina firnde. axe yi nga xam ne moom la ñu teg ak gouvernance politique bi ñu mën a xaar fii ci réewum Sénégal ak vision waaye tamit réalisation yi nga xam ne kon euh, dinañu fës ci déclaration boobu loole moom ministre de l'hydraulique moo ko daal di xamle muy wane rek kon ambition boo xam ne gouvernement bi la daal di dina ko am ngir nag changer euh, bu baax a baax réewum Sénégal waaye tamit rattrapé lim jàpp ne retard la bu am depuis mille neuf cent soixante ba léegi. muy xam ne rek ne kon ci déclaration de politique générale bu kii di premier ministre Ousmane Sonko dinañu ci nemmeekoo rek euh, changement yu nu mel Doro Gueye kon daal nañu ko placé sous mandat de dépôt ka def lu nu mel du juge d'instruction bu troisième euh, cabinet euh, gannaaw wala sax loolu yëpp mu def ko malgré tentative de médiation yi nga xam ne am na l'homme d'affaires bi nag kon finalement fu muy mujj rek mooy di ci prison loolee waxaral sax ba nag benn collectif daal di juddu di sàkku libération ci na mu gën a gaawee loole ci akub communauté yi nag euh, akub communiqué bu ñu fësal kon euh, ay handicapé yu Sénégal waaye tamit ay aveugle ba ci ay daara alxuraan association des auto école ak ay famille religieuse yu bokk na ci ñu nekk ca Touba Kaolack Tivaouane Bouchara ak Kaneen ba ci ay imam ca diwaanu Casamance ak ay étudiant ñuy sàkku nag ci libération la libération kii nga xam ne moo di Doro Gueye nanu ko xibaaree rek ci communiqué bu nu mel ñu koy liir ci yi nekk ca Sénégal moo dina nag ñoom ñi la daal ñu euh, représenté ay groupe ak association yi comme ni ñu ko limee ci kaw rek ñooy lancé benn appel bu urgent waaye tamit bu solennel solennel ci autorité yi yees yi léegi ngeen nag ñu daal di libéré ci nu mu gën a gaawee rek kii di Doro Gaye ndax nag jàpp nañ ne nekkam euh, ak engagement am ci biir askan wi nekk na lu am am solo ban mujjee sax ñu jàppee ko lu essentiel te tamit indispensable Cheikh Bara Ndiaye chroniqueur chaîne de télévision bile di Walfadjri ak membre tamit bu coalition Diomaye Président mu nga ñu ngi ko daal di convoqué ca diwaanu euh, dikk niki alxames su tey jëlee fukki waxtu loolu nag la ko waral moo di na nag moom daal division des investigations criminelles dana ko daal di convoqué rek ngir mu dem tontu ci seen i laaj gannaaw plainte boo xam ne kii di Thérèse Faye daal na ko teg ci ndoddam gannaaw moom ga tuuma yu mu jël gàddu ko ci ndoddam moom Cheikh Bara Ndiaye di rek wax kon ci benn émission euh, koppar gu takk goo xam ne moom Thérèse Faye daal na koy dajale ci lu yàggu ci lu toll ci fukki ñaar bi mu nekkee ci nguuru Macky Sall moom mi nga xam ne sax ca njëlbéenu nguur gi nu mel dafa rek bokkoon benn néeg daal daal di bokkaloon ak ki nga xam ne moo di borom këram moom nag ci diggante bi fi Macky Sall nekkeek léegi daal Thérèse Faye mi dem bu jéem fi nekk ak milliardaire ko bëri xaalis la ba yegg ci lool loole rek moo waral kon. Euh, ba mu daal di ko porté jàpp ne rek da ko diffamé loolee kon fa mu ji rek moo di euh, ca euh, diwaanu division des investigations criminelles des xaarandi rek ana fan la wànnent di mujjee ki gëtam ak mbir munu